Assalamualaikum, ami internaute ñu ñëw ak yéen rek si naqar ak tiis bu dal si kaw bi ñu ko mu di eh, Bilou gannaaw ba mu génnee rek single bu cartonné moom Bilou nag dal annoncé nañu ki nga xamante ne nii eh, di waajuram bu jigéen ne dafa génn aduna ni ki gudi talaata japu alarba eh, noonu nag daal la ñu yëgee boobu la information waaye nag d'après bi binyu defere rek suñu ay gëstu ñu ngi xamal ka dafa nekkoon euh, doom bu jege yaayam te ku yërëm yaayam nekkoon koo xamante ne nii daal euh, mun na ko wooye xaritu yaayam image yi nga xamante ni nag moom moo nekk di défilé euh, bokk na liy firndeel ni moom nekkoon na ki nga xamante ne nii dafa jegeñoon waajuram bu jigéen maanaam daal amoon na benn complicité bu am seen diggante loolu nag nii daal lañ ko gisee kii nga xamante ne moom mooy waajuram bu jigéen rek suñu boroom daal dinay def li gën ñi koy ñaanal yàlla bu ko cet